ñun dañ leen fal ñu tànn leen ngir ngeen utal jiw béykat yi ngeen utal machine njiikaay béykat yi machine agricole yu doy béykat yi au lieu ngeen def loolu ngeen jël suñu xaalis di ci fay ay nervi au lieu ngeen def loolu ngeen jël suñu xaalis di si jënd ay jaas yi di si jënd ay fetal di si jënd ay pick di si yépp ay nervi di ko jox di ñuy dal ci kaw sénégalais yi loolu moo tax ba tey jii ni may wax ak yéen béykat yi nee nañ ana jiw yi béykat yi nee nañ ana machine yi monsieur le ministre façon politique yooyu bokk na ci li tax 2023 bii li ngeen sooraaleel béykat yi mooy ci mille villages yi nekk ci Sénégal 10 058 machine u njiikaay semoir 15000 villages 10 000 semoir maanaam du sax dëkk bu nekk benn chinois ana xaalis bi jox ngeen ko nervi yi ana xaalis yi jënde ngeen ko jaas yi ana xaalis bi ñenn ci yéen waxuma yow de xaw ma ci dara ñenn ci sàcc ko ana xaalis bi président Macky Sall détourné ko loolu moo waral sur 15000 villages. cinq mille cinq cent vingt cinq Oussine quinze mille villages quinze mille villages deux mille cent quatre vingt treize ou occidentales mille villages deux cent quarante six charrette UCF quinze mille villages ñu war leen séddaleel deux mille vingt trois loolu la Macky Sall sóor sept cent quatre vingt dix sept charrettu Fass mille villages ñu war leen séddale deux mille vingt trois bii cent six charrettu Mbam. ana matériel bi 606 charrette mbaam noo koy séddalee 15000 villages lii mooy débat bi. débat bi ce n'est pas la manipulation des sentiments religieux ethniques et confrériques débat bi mooy lan moo tax Sénégal 2023 15000 villages ñu leen di séddaleel 246 charrettes UCF 15000 villages 606 charrettes mbaam lii mooy débat bi bu ñu jéem a lëndëmal xel yi. lan moo waral lii ba pare 606 charrettu mbaam yi sax dañ ko soxore béykat yi ñu ngi koy xëccoog ñoom effectivement ay béylukat pas ay béykat ay béylukat di ko xëccoog ñoom ay béylukat di xëccoo mille villages yi 797 maanaam juróom-ñaari téeméer juróom fukk ak juróom-ñaari charrettu fas ay béylukat ñoo xam ne xamuñu suuf gisuñu suuf dugguñu ci suuf lii mooy le débat monsieur le ministre. ana engrais bi monsieur le ministre ah béykat yi bëgg nañ xam bopp ren bopp bopp bu nekk ñaata kilo jiw certifié lay la nar a am monsieur le ministre béykat yi nee nañ bëgguñu rënd bëgguñu rënd de bëgguñu soos jiw bu baax bu certifié bu doy lañu bëgg pas ay tout venant yoo xam ne d'accord pour rënd la pour soos la pour soos cere jiw la ñu bëgg monsieur le ministre euh, béykat yi ñu ngi gisuñu machine yu njikaay gisuñu jiw ñu naan déet ñuy sàcc seen suuf effectivement moo tax euh, euh, loi sur la réforme foncière la mais dina yéex a génn parce que suuf c'est un moyen d'enrichissement personnel campagne électorale yu bëri sàccum suufu béykat ak sàmmkat ci lañ koy financer ñu bëri ñi nga xam ne démb la ñu nekk maire amuñu woon sax charrette jékki-jékki am R plus 10 sàcc suufu baykat ak sàcc suufu sàmmkat donc nañu taxawal béykat yi euh, monsieur le ministre euh, fii kenn du fi yokk benn mandat troisième mandat du fi am moo xam mandat cinq moo xam mandat deux ans moo xam mandat moo xam mandat une minute mandat une minute Macky Sall du ko am deux mille vingt quatre lay jeex bu ko xamee mooy jàmmam fii nag ku fi bëgg waxtaanee nañu yokk mandat nanga nangoo dégg nañu abrégé mandat ku fi bëgg a waxtaanee nañu yokk mandat nangu nangu na nga nanguñu wax la ne yow sa mandat du egg foog mu leer de Macky Sall du fi am mandat ndaxte du bokk Ousmane Sonko day bokk Khalifa Sall day bokk Karim Wade day bokk ñëpp ñi nga xam ne dañoo nar a bokk dañuy bokk Macky sàll nag du bokk bu dee loolu moo tax muy jël xaalisu mbéy mi di jënd ay nervi di jënd ay ngànnaay d'accord du fi am mandaa jërëjëf